bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadil makin wa ala alihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi ci réew mi ak bitim réew mbokki taalibé yi ñu ngi ci jàkkaarloog seen télévision euh, bi nga xam ne mooy Assalaamy TV mooy jumtukaay bi nga xam ne sunu jëwriñ sëriñ Fallou Gala Sylla euh, moo ko euh, taxawal ñu ko kenn ci ñi ñëwal muy sëriñ Saalih ñu koy ñaanal suñu borom dolli ko wér dolli ko toofeex mbokk yi ni leen ko waxee woon jamono yëpp ci waajtaayu siyaar bi nga xam ne mooy njabatuk Soxna Xadi Mbakke moom sëriñ Saaliwu di waajuru sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke tey jii di ajjuma tolloog fukki fan ak juróom ci weeru novembre waaye dëppoo itam fukki fan ak ñaar ci dumaada ula muy rakkaati gàmmu ba tey ñu tombeek eh, bis bi nga xam ne ci la dongay tarbiya yi demoon ci daara yi ngir xooli tool yi mooy gerte gi waajtaay wi nga xam ne itam ñoo fi daje ak ñoom ngir ñu wala xamal sëriñ bi fa gerte gi toll ak waajtaayu mbàcc mi kon loolu tawfeex ju rëy la mbokk yi dañu fas yéene ànd ak yéen tey jii ak soxna yi nga xam ne ñoom la bàjjan yar muy soxna xari Mbàkke ñi mu yar tan tuddee ko ko ak ñi nga xam ne itam ay tànn ay tànneef la ñu ndax tuddewuñ ko ko waaye moo leen yar ak it sopp yi nga xam ne ñoo nekk ci biir jataay bi ci njiital ki nga xam ne mooy jiite daayira muslimaat muy soxna muslim Mbàkke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke di ñaan suñu borom dëgëral ko kàttanal ko te jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne nii am na ci yéen ju rëy ci mboolem turandoo yi ak ñi nga xam ne itam ñooy ñi soxna si yar ak soppe yi nga xam ne tàmbali naa yaatu si biir réew mi yàlla na law nag ba ci bitim réew te lépp ñu kook moom ci barkeb sëriñ Tuubaa Xaadim bi di nuyu nag ay magam ci góor ñi ak jigéen ñi waaye di nuyu ay rakkam bàyyi woon kenn di ñaanal sëriñ si Ahmadou Mbàkke suñu borom dëgëral ko kàttanal ko kon dana tànn ay tànn yu tànn ñoo xam ne incha allah dana am lu mën a baaxee ci soxna si incha allah kon bisimilah sëñ Saalix yaakaaru sëriñ Xaadim Fall nekk ca barabu sëriñ Tuubaa sëriñ Saalixu Mbàkke najlul Xaadim ah, tubaarkàlla bu bokk ci jàmbaar yi lool nag ah, nan nga gisee siyaar bi ak waajtaay wi ak li nga ciy soññee rawatina mbokk dong yi xam ne jaar nañ ci doon soxna Xadi rawatina nag ñi nga xam ne yàlla daa dawatoon seen seen seen yaram sutante woon ah, loo ci mën a barkeeloo lu mu gàtt gàtt ab tënk lay doon incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di sant cay ñaan sëñ Seex Mbàkke moom sëriñ Saliou sunu borom yàggal ko fi te wéral ay cëram ba yéenam yëpp ak ci ànd ko moom ci barkeb Seexul Xadim ñu ngi sant bu baax ci jataay bu toll nii ñoo jagleen ko jàmbaar ju tedd ja muy soxna Xadi moom mi nga xamante ni dundam yëpp da koo rappal ci liggéeyal yàlla rappal ko ci teete ay ndaw ak dimbali leen ak ak xajo xajoo leen waaw ko mooy soxna Xadi kon buñ ko sàkkalee bis bu mel nii war a dajeeg soñ Seex di dajale ay addi di ko jox ko sëñ Tuubaa kon dañuy sant cay ñaan suñu borom doolu li ñoo dimbali ba kenn ku ne na nga ko yéene ci moom euh, suñu borom may nga mottali ko ñi ngi sàkku it fu waay toll na koy ñaanal ndax moom day dundam gépp rappal na ko ci liggéey Serigne Saliou euh, kon ñi ngi seeraat baax xam ngeen ne soxna Xadi yaa ngi nii toog dama gën a ñuy jël ay kaddu soxna Jatuka euh, bokk ci ñi soxna si yar ci wanag bi kon ñu jox ko kaddu incha allahu taala. ñu ngi leen di siyaar bu baax a mboolem ku fi teew ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di ñaanal sëriñ Saliou Mbacke nag yal na nu yàlla fayal ne ko yal ko yàlla fayal ndax lépp mooma lépp mooma yal na ko bur yàlla fayal yàlla yokk leeram taas ci barkeem di ñaanal sama bàjjen soxna Xadi yàlla na ko yàlla fayal yàlla yokk leeram taas ci barkeem barke sëriñ Touba Cheikh Saliou di ñaanal sëriñ Cheikh Mbacke yàlla guddal fanam loolu yokk wéram. ba yéene ji mu yéene ci kër gi kër baayam gi kër maamam gi suñu borom may ko kàttan ak wér tañ ànd kook moom ànd ko ak rakkam di ñaana soxna Muslim mi nga xam ne nag mooy moo jiite yëf ñu ngi koy ñaana bu baax a baax ndax lii ñun ñii kenn ku ne ñoo ko waroon a mu yëkkatil ñu ko yëkkati nañu ko kenn ku ne di ci gis sa bopp yal na ko fi yàlla ak suñ tubaa kàttanal dooleel ko ba liñ ci bëgg a mu bëgg a egg suñu borom eggale sa nag moom mën na maa wax ci moom mënu maa wax ci moom ndax moom yar nañu yarub diine yarub lislaam yarub teggin de li mu def ci ñun moom mënuñu koo wax sax mënuñu koo wax xanaa feeñal ci yéen waaye man mënuma cee wax sax ndax mboolem koo xam ne ni sukk ci kër ga nekk li ñuy wax ku fa añe bokkut teg sax ku fa añewut sama atu bàjjan boobu waaw ni ngi koy ñaanal suñu boroom yokki leeram taas ci barkeem jaar naa ak ñun fu ne defal nañu lu ne ci àddina fu ne taxawu nañu fa taxawu nañu jànguloo nañu maanaam mboolem lu doomu nit ku yiw def daal defloo nañu ko ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla ak sëñ ko yokk leeram taas ci barkeem barke Serigne Saliou. di suñu sang bu baax ba Serigne Saliou Mbacke yàlla na suñu borom yokk leeram te taas ñu ci barkeem di ñaanal nag soxna Xadi mi nga xam ne moo ñu fi dajale. soxna Xadi mi nga xam ne moo ñu fa dajale maa ngi koy ñaanal suñu borom yokk leeram te taas ci barkeem mais ñaanal. ñëpp ñoo xam ne que di ñaanal soxna Moussa Mbacke mi nga xam ne moo yëkkati daayira bi di ñaanal soxna maam Moussa Mbacke magam gudd fan ak wér di ñaanal waa kër gi yëpp di ñaanal soxna Yekkale Mbacke mi nga xam ne nag dañoo bokk nag moom kër ga ca metti na ja man keroog ba may ñëw ci kër gi ndax keroog ba ma gane àdduna suñ seexa ma tudd tudde ma soxna Xadi maa am juróom ñaari at mu indi ma ci kër gi diiru keroog ak tey mu ne ko sama dara génnul kër gi ba mu romb sama juróom fukki at ak nangam kon kooko war naa mën a wax ci Soxna Xadi Soxna Xadi di nit ku yiw di nit ku baax di as gor yar ñu yor gor yar ñu yor nit ku baax yar ñu yar boo xam ne yor mu mucc ayib Soxna Xadi gën a la ñoo suñuy morom gën a la ñoo suñuy ndey gën a la ñoo suñuy baay Soxna Xadi mu ne ko def nañoo noo xam ne mu ne ko mënuñ koo fay ma nekk ndoo faak soxna jëtu ko mii nga xam ne moo njëkk a wax fekk fa bàjj nekk la Mbàkke ak soxna Baali Mbàkke ak Boussa Touré ñu bokk fa nekk ak gone yi ñëw fekk ñu ca biir ak Fatlaay Juuf mii kon Soxna Xadi mënuñu koo fay jàngal nañu yar nañu yiir nañu jox nañu euh, su borom kër ñu nekk ak moom nekk moom nekk ñu nit ku yiw ba nëgën si ñu am juróom fukki at yu teg kon kooku mënatuñ koo fay xanaa di ko ñaanal suñu borom yokk leeram te taas ñu ci barkeem. képp kuy dëgg sama kàddu mu ñaanal sëriñ Seex mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal soxna Xadi Mbàkke suñu bàjjan suñu borom yeesal yéen maa nekki njëgal ci moom yokk ay xéwalam yokk ay leeram te taasuñ ci barkeem ci barkeem Serigne Touba. di sant bu baax a baax a baax soxna Musimatu Mbàkke mii ñu ngi koy sant bu baax moom mi nga xam ne moo yëkkati liggéey bii ànd ko njaboot soxna Xadi gépp ànd ko soxna Maam Busa Mbàkke magam ànd ko soxna Maam Busa saaxa ànd ko soxna Asu ak mboolem ay rakkam yëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu borom bàyyi leen fi yàggal leen fi wéral leen ba liggéey bi fu ñu ko bëgg a yeggale rek yàlla nañ ko fa yeggale ci ànd ko njaboot soxna Xadi gépp barki sëñ Saaliw di wax nag ne sëñ Afe soxna Xadi moom xanaa dañuy tuuti ay ay ay ci ci ay jikkoom ndax lépp xajul ci ab jotaay soxna Xadi ci njàmbaar ga ak fit ba ak dëggu ga ak pas-yëf ba pas-pas ba ak yaatal ga yaatu ga ak yaatal ga ci yitte ju kawe ja soxna Xadi yitteem ju kawe ak njàmbaaram taxoon na sëriñ Saliou dong boo xam ne mësaan na jóge daara ca tawat soxna Xadi moom la moom la ko sëñ bi di booleel moo lay toppatoo di la laatanti di la jël di la toppatoo ba nga ba nga wér delluwaat fa nga nekkoon mujj na toogatul ba sëñ bi di ko woo di ko booleekub donga day jël ak kol ba yoor yoor ya mu jël kolam dem ci ca baraaj ya baraaj yi nga xam ne moo jàkkaarloo woon ak baraaj ba sa Gueye nekkoon ak ba Ahmadou Naar baraaj yooyee su fa dem day day day jaar ci xëy gi ku ku fa romb dina leen nuyu saafante ak yow ci tënk rek waaw ndax xam naa kàddu yi lépp xajul ci li bi na saafante ak yow laaj la foo dëkk ak foo jóge ak foo bàyyi ko looy looy dox di joojee fekkee mën na ko saafara dana ko saafara sëñ bi di ko yëg bu dee bu dee lu war a yëg ci sëñ bi la ne la taxaw ba sëñ bi yëg ko bu demee ca ca baraag ya ku mu fa fekk da bunt yëpp dañ da taxaw bunt bu ne mu taxaw fa yër ko ku mu fekk ci biir mu tëdd looy tëdd looy looy tëdd mu ne damaa tawat moom soxna Xadi nag yàlla mayoon ko loo xam ne moom day consulté ci am xelam ndax bu jëlee boo ko nee damaa taw nu jël loxoom teg ko sa bopp dana xam ba xam ndax yi mi dangaa siburu rek wala dangaa tooy bu dee ko siburu daa daan wàññeeku ñëw ci kër gi la muy njëkk teg mooy ab ruy togg ruy ba yóbbu ko ci loxoy boppam yóbbu ko jox la taxawala ba nga ba nga naan ruy boobee mu dellu siwaat ñëw ci kër gi bu ñëwee fexe nu mu taxaw koy laax bi saab laax bi saab boobu dana ko togg dana ko togg bu soobee yaa dana ko togg jox jox ko ndongo ba ñëpp moo leen di taxaw di leen jàppale ci yitteem ji kaw ji soxna Xadi ci ak njàmbaarakum fitam daana def boo xamante ne bii kopp bi na muy ñu jox baykat yi aw jiw soxna Xadi daana jël aw jël jël jëm jëm ci ñay jox aw jëli jiw la jël bindu fa aw turam su bindee aw turam ñëw ne jëli leen gerte gi ci bërëb sàngam ñu ñëw jëli ko andi ko mu jox ñu xooli ko delloo ko bu soobee ba moom lañ togg ndax boobu sëñ bi xawoon naa doy waar kër gi waaye nag lépp ci passeport soxna Xadi rek ak njàmbaar ga soxna yi amoon na ay bokkam amoon na ñëpp soxna Xadi sant bu nekk ngi ci sant ñëpp ñëpp soxna Xadi sant bu nekk ngi ci ndax sant boobu ndax ak njàmbaaram ak ak yëttee jëkkëram amoon na ñëpp am ay bokkam am ay dëkkam te ñëpp ma kenn ku ci nekk teraanga jim la ji moo tax nga tudde ko doom jox ko ko ñii di ko tudde doom mu nelaw ñu jël jëy naan doom jox ko kon yàlla na ko suñu borom kattanal te dooleel ko te may ko àjjanay firdawsi te saal ko fa ci barkeb Sëriñ Tuubaa te njaboot gi suñu borom barkeelal leen lool def ci ñoom wér ak gudd fan ak kattan ak i xéwal ci barke Sëriñ Saaliw soxna Xadi li fat laay wax rek neex naa wax naqari naa wax ndax soxna Xadi ñun ñun waa sëñ Saaliw day ba ñu ne daara ja te booba day du tey ku newoon ca daara ja xam nga ne booba du tey booba dem biir gi doy na waar lool waaye boo agsee bor sa doom ñëw boo nuyoo soxna Xadi ma nga lay jëkk xool ba xam yow mi xiif nga wala xiifoo dana daal di jox nga lekk bu dee ko da ngaa tawat mu faj la bu sa doom tawatee mu faj la soxna Xadi daal yàlla nañu ko yàlla fayal ak sëñ Saliou Mbacke yàlla nañu ko suñu borom fayal di wax ci kàddu waa jànnatu gépp nag ñoom jàbba jong ba ci jawrin bintu si la ñoom ami joom ñëpp di ci seen kàddu gone yi nga xam ne fi ne ñëpp ah di wax ñaanal nag soxna musli bu baax nag moom mi nga xam ne moo taxawal lii ba yàlla indi nu ci ban man cee def dara loo xam ne si luñ kawee suñ jot lay doon man cee jëf ba nga xam ni ah sun borom lañ ca jàppalañ ca ndax yéene woon nañ ko te xamuñu bunt bi ni aw ah, waaye soxna musi daal yaa nañ ko yàlla fayal ci barke sëñ Touba Mbàkke jëw ni demoon barki démb kër Matar Jaxate kër Baye Moussa Niang kër Birane Gaye kër Ibrahima Seen kër bàcc sëñ Bàcc Touré fu ñu dem ak sëñ sëñ Abibou Diop barke sëñ Saliou yaakaar fu dem dañ naan yéen de li ngeen dox ñun ñoo ko waroon dox kenn ku ne soxna Xadi maa ko moom kon loolu moom xam ne si ku ne teg nga kon daal soxna Xadi yàlla nañu ko yàlla fayal rek yàlla guddal fanu sëñ Seex lool ak soxna Muslim bi ko taxawal ak Maam Musa Mbàkke mi taaw waa kër sëñ Seex gépp yàlla na yàlla suñu borom bi boole nu jàmm yàlla nañu yàlla dolli xéewal ak gudd fan gu ànd ak wërsëg di ziyaare sëñ Seex moom Seex Saaliw di ko ñaanal nag fan wu gudd ànd ak ñaanal nag soxna Muslim mi nga xam ne lépp mooma moo yaatal moo li ndax lii ba mu ko sosee da koo yaatal boole ci turandoo yi boole ci soppe yi boole ci ña fa yaroo boole fi ñëpp tey ku waa ku nit gëjoon a gis nit rek ca soxna xadi ju metti ja rek tey gis nga ko kon soxna musli ak soxna yàkkali ak soxna maam bu sa ñu ngi leen di ñaanal yàlla nun sut sun maam ju baax jaaw fan te di sa barke wa soxna xadi nag géej la rek ku ciy wax du jeex xanaa dangay wax la nga xam te gàttal ko waaye ku yaroo ci keppaaram nu roowut ak ka fa yaroowut danga am yar boo xam ne ak jukko joo xam ne foo dem danga fa man a ne ba ci mën mii nga xam ne ab ràbb laa dem naa fa ma sama kër de waaye ba ma demee tooge naa fa noo xam ne soxna Xadi laa ko sante ndax ay ndigalam ak kàddu yum lay wax yoo xam ne boo demee danga xoolaat sa bopp kon dañ koy ñaanal Mbàkke yal na yàlla yokki leeram taas nu ci barkeem ndax ku dégg ay ndigalam masa nga masa toog ci keppaaram nu róowut ak nga xam ne yorowut ci keppaaram te foo dem yare ñu duñ bokk te loolu jëfi soxna Xadi la kon Balaye sa ñi ngi koy ñaanal yal na yàlla lokki reeram taas nu ci barkeem di sant nag soxna musli bu baax a baax a baax a baax moom mi liggéey liggéey bu rëy bii kon dañ koy ñaanal yal na taxawaayam yàgg mu sut maam ju baax a jaaw fan nan ko yemale foofu nag waaye li xam ci soxna Xadi buñ ko doon dox fi la ñuy fanaan jërëjëf. di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mu yàgg fi lool te wér di ñaanal soxna yi fekk kër gi. yàlla leen fi suñu borom baay ñu yàgg ñoo jiite yàgg topp ci seen ginnaaw di ñaan ñaanal soxna mu si Mbàkke bu baax nag ndax lii lépp moo ma ndax wax dëgg yàlla moo ñu taxawal daayira bi dem ci waajuram mu sell wa muy Serigne Cheikh Mbacke mu jox ko turu daayira bi mu woo mboolem fu ni nekk soxna mu si dina la woo fàttali la soxna si ndax maa nga jóge ba Joal te yor samay liggéey waaye soxna Xadi jaral na ma bu ma nekkoon ba Kirikoro sax dinaa ñëw ndax taxawaay bi mu amoon ci man sama papa amoon yéene lool jox ma ko te jox gam ma ko jox réccu ma ko mukk ndax bu ma taxawee ak euh, bu ma taxa fépp fu ma man di taxaw wala ma wax danañ xam kan moo ma yar ba dañ koy laajte sax naan ma yow éducation bi nga yor ak bi sa mbo sa yeneen mbokk ñi nga bokkal bokkuñu man leen bokkuñu fu ñu yaroo ndax Soxna Xadi jëmm jëmm la woon joo xam ne képp ku ko xamoon xam ko ci diine xam ko ci lislaam xam ko ci baax xam ko ci yaatu xam ko ci lépp loo xamante ni doomu aadama da ko yittewoo Soxna Xadi dana dana la ko defal doo jaaxle ba pour nga tàggoo woon dem sa kër sa kër waajur yi sax du nekk ci sa xel ndax taxawaay bu mu amoon ci yow kon may sant sama ñaari waajur bu baax muy Baye Moori Ndour ni ko kat ah wax dëgg yàlla ki ma boole loon di réccu ko benn yoon ndax jikko yim def ci man de wax dëgg yàlla sant naa li may li li ma metti rek te suñu borom kenn mënut a xëccoo moom mooy jële gim ko fi jële te loolu kullu nafsin saalihatun mawti képp ku ñam bakken bu ñam dund dina ñam de waaye soxna Xadi de loolu rek lay jooy ci moom muy teel a dem gim teel a dem rek moo ñu metti ci moom ndax wax dëgg yàlla baaxoon na lool woon na mbooleem jaboot amul kenn ku mu wéetal danga naan kii la mën a bëgg kii la gën a bëgg ci ci ci taxawaay ba ci yar ba te na yàlla loolu gëm naa bu bu doon sa yaay la sax est ce que taxawaay bi Soxna Xadi am di ko am ndax baaxoon na yaatu woon na ba ko képp koo xam ne yoroon nga jàngoro ci biir kër gi dina la toppatoo dina la yóbbu hôpital jamonoy waga maa ngi koy fàtte amoon na benn meer bu daan ñëw ci moom ndeysaan dañu daan dugal ci paan di ñu sang ci yaatu ga ci yërmande ja jël taawam jamonoy bekki mu di ñu ko diwal di ñu toppatoo kenn musta feebar ba xalaat sa yaay wala nga xalaat sa papa kon loolu jëmm ju mel noonu bu la ko defalee wan la ginnaaw waroo ko mën a fàtte benn yoon ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla na yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem te yàggal fi Serigne Cheikh Mbacke mu yàgg fi lool te wér lépp lu mu dund doyul yàlla na dund cent ans sans ordonnance ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax kontaan nañ ci soxna Xadi lool li ma war li ma bëgg a wax lépp li duuf ci nag bi xajul ci ci li ma bëgg a wax lépp ci soxna Xadi xaju ci waaye wax dëgg yàlla sant nañ ko bu baax a baax a baax sama papa tamit fa mu tëdd xolam sedd na lool ci soxna Xadi ndax defal na ma éducation boo xam ni wax dëgg yàlla sant naa ko jërëjëfe soxna Xadi julli ci sangu-sang yi ginnaaw bi sante yàlla suñu borom bi ñu sàkk te moom di nuy ñëpp rek sant bu baax a baax boole gu ñu yàlla sama boroom boole ci daayira soxna Xadi Mbàkke bi daayira muslimaat ak mbooloo mi ma ko àndal ndax sëñ Moustapha wax léegi rek kenn mënul dara ndax lu kenn mën ñaar ko ko dàq te mbooloo mooy doole di sant bu baax it sama borom kër bi sëñ Xaadim ndax moom it ginnaaw yàlla suñu borom lii lépp moom la ndax yàlla dama booleek moom mu fekk maak sëriñ saaliw lu jiitu sama tàbbi ci loxoom waaye nag yàqalul ma dara ci sëriñ saaliw ndax bu ko neexoon mun ma daaru salaam laa bokk foom laay ziyaare ndax yoonu murit lépp dama naan ak garab la rekk sëriñ Touba mooy mooy garab gi cër yi bànqaasoo ci sëñ bi ci mooy garab gi mooy cari fu ne benn aw fa lépp sëñ Touba ko moom daaru salaam ak daaru muxteek njabootu sëñ Touba gi sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtala lépp garab gi sëriñ Touba la waaye kenn ku ne am na buntu booy dugg pour siyaar yi kon su bokkee Daaru Salaam di fa siyaar yi bàyyi maak sëriñ Saaliw loolu ak mbaaxam la jaw ma ko ci sant bu baax sant sëñ bàcc ma sàmb mi xam moom it mooy suñu càmmañ ci daayira bi sëñ Moustapha tey di sant góor ngi ci bokk ñëpp waaye di beral cant nag jigéen ñi nga xam ne ñoom laa ko àndale ndax ñoom lépp ak mbaax la ndax bëgg lu baax mooy tax ñu boole ci lu baax nga bokk ca wala ñu wóole ci lu baax nga wuy ji kon dañoo bokk bëgg sëriñ Saliou Mbacke ba mu boole ñu ndax ku mel ni soxna Awa Gueye mii ma ngi dëkk si ba waaye sëriñ Saliou woo ñu boole mu ànd ak ay rakkam ni ak i xaritam soxna Assou Mbacke mii mi ngi dëkk piir soxna Mariam Ndiaye mii mi ngi dëkk piir soxna Khady Gassama mais moom it piir la dëkk soxna Anta Tall soxna Yaawali mi moom it ñu bokk dëkk pir moom it buñ ko àndee siyaare ba tey bés bu ne mu ñëw soxna mboose mi moom ñoo bokk dëkk janoo place yi ñuy jaayee ca garage ba ak suñu yaay doom jële xanaa li ma yokk ci kàddu rek soxna Mati Mbay mënumaa lim ñëpp soo limee romb sa soppe <laughs> yaa sax na Awa Touré moom it mi ngi jóge ba Kees moom it yàgg ba ànd bëgg Sëriñ Saaliw bu jëkkëram jógee ba Amérique day ñëw fekk ma pir di ma indil ay teraanga lépp ginnaaw yàlla bëgg Sëriñ Saaliw moo ñu soxna Mati Mbay kon daal li ma ciy wax suñu aadama rek yow di la sant bu baax ci rafetal bi nga def ki ñëw ñu ànd ci siyaar bi di sant ñëpp ñu wax ni daayira bi li ko tax a jóg mooy daayira soxna Xadi Mbàkke la ku ni soxna Xadi ni yaay way juru sëriñ Seex turandooy soxna Xadi yi ak xat ñi mu yar ñoo ñoo taxawal dayre bi ci ndigalu sëriñ Seex Mbàkke mi di leeruk sëriñ Saaliw ak soxna Xadi man nag li ma ci boole ginnaaw yàlla suñ borom mooy di ñëw fii di siyaati sëñ Seex ndax sëñ Seex damaa booleek ak soxnaam fu ñuy wax soxna Faati Mbàkke Bàjjan moom it leeru sëriñ Abdou Mbàkke bi ma yàlla booleek moom it su euh, ma ñëwee Tuubaa dama ñëw siyaati si soxna Faati Bàjjan bis ma ñëw ci kër gi fekk soxna Faati ànd ak sëñ bi dem ci tool yi ma gis soxna muslimatu nuyu ko mu baax loolu nag moom it yaatal ma mel ni ko ma xamoon bu yàgg ma amante ma numéro téléphone mu daal di may woo ne ma mbaa sonnoo cóoni mbaa egsi nga loolu ak mbaax la ci commencement sama diggante ak moom boobu ba nëgë nag yàlla dogal ñuy ànd ba daayira bi moom mu bokkoon ci jiite ko loolu la ma yàlla booleek daayira bi mu yàgg naa ñëw di ànd ak moom di siyaasi daayira bi te booba man maa daan jóge pour suba teel ñu dem ba ma jox ay carte membre carte barkeelu su ma joxee carte yi ma sant Mbaye Moussa Samb ndax su ma soxna si joxaan kaat yi damay dem jox ko Baye Moussa Sam moom nu wecciku lépp jox ma xaalis su ma nekk nañu ànd yóbbu ko mën ma demal yóbbu lépp benn la may ñëw indi kaat yi yi muy dem nag ba loolu boole ñu ñun ñi dañoo àndoon bokk groupe ak soxna Ndey Njaay ñëwagul soxna Aminata Fall ànd groupe bu liggéeyal Serigne Saliou ci tooli Xelkom yi ñun ñëpp moo ñu boole woon ñu dem bis nag ba ma ñëw ziar si toog ñu ak njabootu Serigne Cheikh gi mu jël vidéo bi soxna Aminta ma ko envoyé soxna Amin doomu sëñ bi la rek soxna Musli bi ma envoyé vidéo bi nag ma estati ko soxna Ndey Njaay gis ko ni ma waaye toogaay bi nga toog tubaarkàlla suñu sax ni ma ko bëgg li ma ko gis bariwul dama koy séen rek buñ demee ziar mun ko daayira bi de boo ci bokkee di nga toog nii suñu sax toog nii bu neexee suñ borom mun ma loolu kon du ma ko waaj boole ma ci booy saarit nag ma ko wax ba mu njëkkee ziar si soxna Ndey Njaay laa àndal ak rakkam ñu jógee Dakar ñëw ñu daje boobaa léegi dañuy bëgg ñu bëgg lu baax ñoom ñu daal ci bokk ñoom ñëpp macha allah boobu ni ngeen tamit ñu ànd ngi dem Serigne Touba ak Serigne Saliou te dara ñaawul noonu la daayira bi ndoxee waaye ñun dañoo ñëw yokku ci daayira bi mais daayira bi daayira waa kër Serigne Cheikh la sëñ Fall bu sa sànq rek daayira bi bokk ci yëpp ndax njabootu Serigne Saliou ñoom ñoo ko moomal seen bopp turandooy soxna xale yi mu ñu ko tuddee njaboot ak doom yi mu yaral boppam kon ñu ñii buñ ci yàlla boolee ginnaaw yàlla bëgg Serigne Saliou Mbacke mooñ ci boolee kon ñu koy sant yàlla suñu borom bu wér a wér a wér di nuyu tamit soxna sama ndey dikke bi sama xarit ñu bokk Serigne Saliou soxna Assa Diop baay Fall soxna Fatou Diop Baye Fall di ku baax ñu yàgg ànd moom di liggéeyal Serigne Saliou muy nit ku baax Diop di ku yaatu Serigne Saliou rek ko ñor kon daal. alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi soxna Muslim Mbàkke moo ma yónnee ay kàddu yu ngërëm ak i sant ak i ñaan di sant waa daayira bii jóge Pire di soppee Serigne Saliou Mbàkke di dongo yi nga xam ni daayira son Xadi Saaliwu bii di muslimatu bi soxna màggat xool jiite ko di ànd ak waa daayira Pire di ànd ak jàmbaar yi ànd ak jàmbaari Serigne Saliou yëpp nga xam ne ku ci ne taxawaay bu mat sëkk nga ci taxawee soxna si nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci njiitul soxna màggat xollu mi nga xam ne mooy njiital daayira bi nee na saa bu ngeen ñëwee daaru salaam dañuy xam ni yegg si ngeen soxna mu si xorom sax du ko jëndaat lépp dañ koy indaale doon jàmbaar ca waañ wa mën ca liggéey ba kon nee na yàlla na leen yàlla dolli barke dolli leen xéewal dolli leen wér comme noonu ma leen ko waxee woon rek ma di ca jaaraat mu sëñ Saliou boo koy liggéeyal bul ragal bul tiit bul jàq ndax du ànd ak ku ragal du ànd ak ku yaafus du ànd ak ku yàkkamti ndax saa boo yàkkamtee da ngay yaakaar ni soo sooboo ca liggéey ba dangay ngay yàkkamti ba doo nekk njariñ la mu fekk la fa saa boo xamee ni ragal nga danga naan duma ca soobu lii bu ma ko sooboo du dem da ngay daal di gàntal dangaa yaafuus coono yàlla ko dul jaril jaral ba ngay daj sa njariñ la ba di ca yegg kon nag na ngeen góor góorgóorlu te yokku taxawaay bi yal na leen yàlla dolli barke ci barkeb alxuraan ak xasida di sant jàmbaar ji nga xam ne mooy jàmbaari Serigne Saliou ji muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ni daa soxna Khady Saliou dongam yi mu fi bàyyi sëñ Cheikh Mbacké di ciy taxaw taxawaay bu mat sëkk ci biir ak ci biti ku ne fa nga nekk da cay yónnee ay ndimbal di la taxaw soxla soo am mu taxaw ca man mi bërki démb sama doom ji newoon jànnatu di buri mbay nga xam ne dafa opéré ba pare nelaw sëñ Cheikh Mbacké taxawaay bu rëy la ca taxaw que sëñ ji lañ tuddee xale ba dara jógewul sama kër néeg lañ ma fa jox ma ne fa ba liggéey ba yegg ba mu génn kon sëñ Cheikh Mbacké ñi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal liggéey sëñ Saliou bi ak daara yi fa mu ca bëgg a yegg yàlla na ko suñu borom kattanal defal ko tawféex ba mu ànd koog ñun ñëpp soxna Muslim Mbacké nag donga yaa ngi nii ay ndab lanu yoo xam ne defuñu dara di ñaan nag seen ndab yi mbakke la sëñ Seex Mbàkke la sëriñ Saliou baddiloon Seex Béthio Thioune ñu ngi ñaan donga yaa ngi nii teew ay ndab lanu yu deful dara bëgg tawféex jun ànd ak yow ak ndimbal ak yërmande ak kattan ak liggéey bu mucc loolu daal la ñuy ñaan du ñu la wor duñu la bàyyi Mbàkke foo ñu woo ñu wuyu la donga yaa ngi nii teew man nag damaa yore seen kàddu di tuur tànku bu soxna Xadi Saliou waaye ñi ngi ñaan Mbàkke yow it yàlla na nga gudd fante am wér ak jàmbaar yi nga séqal liggéey bi yëpp ñoom yaa faat waa janatu ak ñoom yaa jatuka ak soxna Xadi Ndaw ak jëwriñ yëpp yin bokkal liggéey bi bokk kër gi ñi ngi ñaan yàlla na suñu borom dolli leen barke dolli leen ndam ki leen yar am na ñoo xam ne ay turandoom lan mu yar leen ñi ngi ci biir mbooloo mi yaatu nañ fi lool na tey ndax woo nañ mbooleem soxna Xadi yëpp bàyyiwun benn soxna Xadi kenn ku ci nekk soxna musuli woon la ñoom ñëpp tey ñëw nañ ci sa ron ngir fàttaliku la nga xam ne waxoon nga ko ca siyaar bu njëkk ba ne saa boo jon ak ñoom day ñi soxna si yar sa sam xel day delluwaat ci soxna maam Khady Mbacké loolee nag nekk lu rëy ci ñoom lool ba tax na ñoom ñëpp day seen yéene mooy di jàkkaarloo yow buñ sañoon sax du doon at mu ne juróom benn weer yu ne lay doon soxna jatuka mooy ki leen jiite muy mboolem soxna xarit yi ñoom ñëpp a ngi fi yi ñëpp soxna Fatou lay Diouf mboolem ñi bàjjan yar mooy ki leen jiite moom it mi ngi fi soxna Maguette Xollu mboolem sopp yi nga xam ne dañoo sopp ñi soxna si yar ñoom itam yàlla dogal nañu jot a jokkoo ak soxna def ab kuréel bi yaatu muy soppe yi soxna Maguette Xollu moo jiite ca biir soxna Safiyatu Ñang mooy jiite mboolem dong yi nga xam ne ñoo féete jantul mahwa ak sëriñ ak ñi nga xam ne ñoo féete itam mooy bu naafix ñoom ñëpp de seen yéene mooy ñëw fii ndax kenn ku ci nekk ci ñoom soxna si am na fu mu jaar ak yow foo xamante ni saa boo koy nettali daanaka ay ronkañ nga ci teg ne doo ko mën a yeggale loole nag yëmul ci jigéen ñi rek ba ci góor ñi nga xam ne ñooy ñi sëriñ bi yar am na ci ñoom ñoo xam ne soxna si am na fu mu ñoom te kenn ku ci nekk bu koy fàttaliku daanaka du ko mën a yeggale ndax ñeewantu lool kon ñooñu ñëpp ñoo ñëw ci sa tey jii ànd kook soxna Muslim Mbacké ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko ay magam jàppale ko nag lool ci liggéey bii ñu ànd ko Serigne Saliou Samb moo féete rek ak li ko wër waaye itam soxna Mambousa Touré mi nga xam ne mooy parte parole bi doomi soxna Yakkale am taxawaay bu déy ba tax na sax mu def benn taalif boo xam ne da koy jëmale ci soxna si muy taalif bu am solo loolu lépp rek ak bëgg lañ ci jublu ak di sàkku ci yow la nga waxoon ca daaw muy wax ju am solo mooy umul muminin da am na waaye yaakaar na soxna si mu nekk umul muridin kon nag yàlla na ko yàlla def ci barkeb sëñ Tuubaa Seexul Xadim ñoom ñëpp nag ñu ngi lay maase di ñaanal suñu borom yàggal la wéral la àggale sa yéene ci liggéey bii nga am yéene ci liggéeyal ko sëriñ Tuubaa Seexul Xadim loolee waral ñu sëmbër seen ñaan yooyu ci ñaan yii mooy sëriñ bi ñaan yi ñu lay ñaanal si ndeeki feneen yàlla na la buur yàlla nag woon lépp amini noohin alayhi salaatullahi nam gudde woon aw fan safan yàlla na guddel noonu amini liggéey na sa yàlla na sotteeg jàmm loo bëgg jëf yàlla na nga ko jëf na nga ko bëggee mbàkke amini sag tànn ngir ñun fa góor ñey tànn yàlla nañu am tawféexi jot ca ba ñeetaani amini ci barke Cheikh Bamba mii ngay mii ngay roy ci wax ak i jëf xëyal di moom Mbàkke jaajëf yaa rafet yéene yaay waaja noo ngi roy ñooñee di sakku ci yow barke ngërëm yàlla nañu am lépp amiin yi mbokk yi nga xam ne ñoom lañ fi dajal nag muy dongay tarbiya yi ñu demoon tool yi seeti ko bis bii day bég nañ ci mbégte moo xam ne lépp dañoo xam ne delluwaat nañ ci sa sa waajur bu tedd wa muy soxna moom Xadi Mbàkke ndax ñoom it seeti nañ tool yi ànd ak ñoom ñu daje fi loolu mbégte la mu réy réy ci ñun ñoom itam bég nañ ci lool ci daje gi ñu daje kàddu yaa ngi noonu waa ñoo ngi jégalu nag bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dundu yonent yàlla noox Mbàkke yàlla nga àggale sa yéene yëpp sa sumb yëpp yàlla nga ko àggale man nag damay wax ci turu dongo yi nga xam ne sama maam da leen dimbali bañ samp kër dimbali leen bañ denc dimbali leen bañ seen aajo yëpp faju Mbàkke ñu ngi ñaan fa mu nekk yàlla na ko fa xéewli Sëñ Saaliw gën a dolli ko Mbàkke yow mi itam sa sumb yëpp sa naal yëpp yàlla nga ko àggale ni nga ko bëggee ndax sagub lislaam nga sa yoonu murit nga sagub ñu baax ñëpp nga Mbàkke yàlla dal fi yàlla yàggal jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. yéen yaay yi yaay yi. yéen yaay yi. ak ak ñeneen ñi ma bokkal ci sopp yaay yi ngir jëmmi bokkal ci soppe yaay yi ngir jëmmi sëriñ bi. man ñi ma bokkal. ak moom moom ci boppam wax ñi ma bokkal. ci soppe ngir jëmmi sëriñ bi. xam nga yaay yi ku nekk ak soppe. xam ngeen ni yaay yi rek fi nekk ak soppe yi. nee na mi ngi nuyu yaay ak soppe yi. nee na li ci des nag mu sas ma ma jotli ko. li may njëkk a wax mooy sëriñ bi yàlla na fi yàgg tànd ko wér. sëg bëgg yàlla na nga ko am ci saahir ak ci baatin. li nu fi tax a teew nag. mooy radiyallahu anha sun maam Xadi Mbàkke damaa xamul nag ndax ni ma koy doxale ni la wala du waaye keroo ba sun boroom dogalee mu wàcc ab liggéey fekk nit kuy jàng xam-xam day bari lu mu alxuraan di xool waxoon naa ko danaa ko waxaat bu ma ubbee téere bi de la ma njëkk a yem inna allasina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim lanhaaru fi jannati nahim dahwihum fiha subhanaka allahum wa tahiyatum fiha salaam wa axiru dahwihum an alhamdulilahi rabbil alamin ab cër la boo xam ne ab cër féete wu ko kaw ab cër mën na caa àgg waaye cër du ko féete kaw kon yàlla nañu ko sun borom fayal te taasuñ ci barkeem kàddu googu nag day kàddu goo xam ne kàddu xol la kàddu leer la kàddu cër bi yàlla la moo tax ma tàmbalee ko waaye ñi fi teew ñépp sëriñ bi ñu ngi lay jox nuyoo bu ñu tibbee ci seen xol jaarale ko ci xol bu leen doy muy soxna musli ndax man day damay toog suma kër léeg-léeg ab donga ne ma man de soxna sa jaar na sama kër mbaa soxna si yónnee na suma kër ma ne ko kon da xam ne bëggug sëriñ waajuram te mi koy dox kon soxna si yàlla na la sun borom dimbale jàppale la bay lii ngay yëkkati mu àgge foo ko foogewut dama mbokk mu baax nag mu yàgg ci sëriñ bi te du kenn du ñaar du ñett du ñeent tey jii nuy waxtaan mu ni ma danaa la wax lu yàgg da ci soxna si te loola day wane am xelam aku bëggam sëriñ bi aku fitam ndax ne am na jamono yàgg yooyu boo toogee fii ci kër sëriñ bi boo déggeem njàng ci dëkk bi li ci ëpp kër sëñ Saaliwu ndax boo moo yor mbooloo mu ko man waaye nag boo dawalee sa bët jëm gànnaar ba gedee boo fi séenee dara ak pël lay doon wala foo xam ne ay sàmm fa dëkk am genn guddi gu sori njàng mi neex lool ba guddi gu sori ba sori radiyallahu anha soxna di génn doxub diir seen jëmm jëmm joojee dox ba yàgg mu ñëw tolloo wenn sàkket wàqi ba mu xóot mu sool fa lam yoroon di aw yat ca sagoom sa xelam ma moom soxna si mu ni wëlbét jaare ne ci biir ñëw ba tolloog sëriñ bi ni ko mbooloo da lu ne da caa damaa seen jëmmu joj day ñëpp a fii ñëw waaye nag mu defee damaa jaaxal fee ca buntu kër ba da suul na fa aw yat tama nga nee toog sëriñ bi daal di diw mu yu mu ne diw ñu ñëw mun leen toppatoo leen ma loolu yi ñooñee itam jëfandikoo seen xelum murit ñëw dend ak waaja daal di ko ni ginnaaw buñ jënee ba suliet wane ko lii da daa mel yaa moom mu ne waaw waaw maa ko moom de ñu ko fee nga ko suuloon loo ci jublu mooy dara la ci jublu su mooy dem suli ko ŋàbb ko ndax bëgguma gone fab ko foo ma jógee nag dafa sori njàng mee neex ba antumaak sago bi may ñëw te dawkat yi bari ci yoon wi kon da ngay xool googu googu xereñ ak woowu fit ak moomu xel kooka doolil ma ci ni dajaa def saa soo xam ne fajar jot na soo ne si buy génn di doxantu kenn mës sa gis nag mu sol aw dàll ci biir liy keesi sëriñ bi ba ca buntu kër ba waaye ndeke doxant bi man danoo def woon day wérde waaye ndeke romb na wérde am benn bés mu ni diw diw ñëw mu ne na am na tànk boobu day ñetti fan yëpp maa ngi koy gis muy romb buntu kër bi te wóolu moom muy doxkat bu safaan da ngay xoolu googu foogu kon wa kon siyaasiyan daqiqa nasari kaatima sirrin axisan bil xasari àggoon na fok kayo foofu baneen bi si dolli ko dafa am jëm ju baax jox xam ne mas na ko tudd mas na ko bañ a tudd dafa morité woon lool ba bàyyi woon daara ji dem newetaani ba mu ñëwee sëb ña mu njëkkaandi sëriñ bi sëriñ bi kenn du ko jam ñaan yi loo ko wan ci sëriñ bi moom lañu ko ëpp sëñ bi da jël ca sëb ñooñee jox ko soxna Xadi nekk nag ma ci defal lu laaxu caaxaan mu ko defee ba ko sëriñ bi tibb ci ndab ni nañu woo diw ñu woo ko mu ne ko jëlal loolu barkeeloo ko ba mu ko ubbee xool dafa sar xolle jël satal sëñ bi sotti ko ca ne laa ko caaxaan dox koy lekk ba mu ca jugee li may bëgg a wax nag mooy la tax mbir ma am solo mu jugee ci mel ni ko àndut ak sagoom mel ni koy ak sëriñ bi ñi ci kër gi kenn yëgut soo Xadi moo ne diw diw yéen bu ngeen seetaanee ba sëñ bii kii lor ko nu ngeen di def talam doon wax mat na ko ndax kooke jëlee nañ ko fa yóbbu nañ ko fa sori te sëriñ bi mel ne loola sant na ca laneen li nga xayante ne bii nag mooy dooliku ci suñ jotaay bii ndax dafa gàtt te sëñ bi ko jàkkaarloog yow bu ko doyut amatul lu ko doy dafa am lu nax yi boo wax loolu lañ lay wax ci lu baax ak lu rafet ak lu war a am ak lu dib sag ak lu jur ndam fala sun borom dimbalee nga tekk ci sa tànk yow day li arab di woowee rubba lañ lay jàppe te arab ba dafa wax ne wa rubba taati abadan munakkara wala yeli musaddara wala yeli hal ismu illa nakira wa rubba taati abadan musaddara ne rubba moom foo ko fekk day ne ca kanam lu bëgg a ne ci kanamam it du sotti da ngay ne ci ginnaawam rek kon dafay mel ni kàddu ga nga xam ne moom la sëñ Abdou Dieng Balla Faali waxoon mu génn ci gémmiñam dugg ci sama nopp mu ni Serigne Saliou day bu xoolee kanamam du gis ku muy topp bu gey saw ginnaawam du gis ku koy topp dafa raw gaañu waaye gaa yaa ngi ci yoon bi kon saw doxee ne yàlla na sa njiglaay saw doxee ne yàlla naa nga fa nga ko bëggee ci barkab Serigne Saliou beneen bi ci dolli ko nag mooy nu ñi sunu bëgg genn la muy nax yu ba dafa wax ne isa radiyat xalaya banu xusayrin la xamrullaahi ahjabani ridaha soxla wuñ ci yow dara lu dul ngërëm ngërëm li nag dañ cee xam lu rëy ndax lañ jaxasoo nag sëriñ saa yi luñ ca doon gis gis nañ ko ci yow lum nu doon xeeñal xeeñu nañu ci yow kon mënunu lu weesu di la ñaan yàgg gu ànd ko wér te doyloo sag ñaan nag te gën koo tàmm ci suñ bëggu bopp ak suñ ñaanuk bopp kon Mbàkke duma ma bëgg a yëkkatee kàddu ba muy ëpp ndax damay wax ne ab jataay ku ku am jàkkaarloo ceeg yow la muy fas booba am na ko la mu bëggit booba am na ko kon dara jëratu caa guddal xanaa jéggalu la tayit waxoon naa ko sëriñ Saaliw ca njurul daayira bi ndongo yi yëkka siyaare noonu naa ko man la ñuy wax loo da waaye nag wax ji day jafe ndax wallahi laa ukallimuka illaa ka axi siraar loolu Seydina Omar waxoon yonent bi moo dee wax ak yow damay mel ni koy déy te bu génnee ku mën a wax la kon nag Mbàkke jox nañ la ak cofeel jox nañ la ak wegeel jox nañ la ak fonkeel te itam noo ngi jàngal suñu bopp di tareel ñiy dégg ñu xam ni mësuñoo gis ci jikko doomu aadama joxe dab na la ca ndax mësuñoo gis kenn koo xam ne wax nga ko ni uffin muy li gën a tuuti te itam mësuñoo gis nga xëccoog nit ci dara ku la mu nangu ak la mu bëgg seq koog yow day mel ni lam la tàllal doy na la waaye boo sañoon nag mu jox la lépp nga ndax nga defar lépp kon nag nan farlu ca jox la lépp ndax nga defar suñ lépp noo ngi gën a jéggulu te di la ñaanal yàgg gu ànd wér yow ak sa njaboot ak kooko ko yéenee ku la ko yéenee ci barkeb Sëriñ Saaliw jërëjëf Mbacke waaw mbooloo mi yéen ñëpp nangu leen ñaan te ngeen fas ci li ngeen bëgg nag amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ok jërë ngeen jëf mbokk yi euh, ñu ngi santaat yàlla bu baax di sant Serigne Cheikh ñaan suñu borom mu gëdd loo fanam tamay ko wér di sant boolem daahir muslimaat yëpp nag fu nu mën a bàyyi ko ci régions yi département yi arrondissement yi soxna muslim nag mi ngi sant ñëpp ñëpp waaye nag jiital ci ñii nga xam ne ñooy waajuram ay waajuram nekk fii ci kër gi di liggéeyal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké waajuram bu tedd bi waajuram yooyu day amut ak pay gu jëm ci ñoom sant lu mu sant sant desal dala ko ci soxna maam Faati Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom la nekkal ci ëtt bi ndax ñoom day bu ñu xëyee ñoo jàpp ci liggéey bi xaaruñu ko ci laataa muy ñëw dañ ko daan defee basang yeeg lépp ñoo jiitu ñu walal ko di leen tatagal ci ay bernde ñoom ci seen bopp muy ay waajuram loolee nag wax dëgg yàlla tax na mi leen di sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem sant na leen di ñaan suñu borom yàggal leen ci kanamu waajuram wu tedd bi te lépp ñu ànd ko di sant mboolem ku ñëwoon waaye di santal sëñ Fallou Gala la ak sëñ Saliou mi nga xam ne moom la yebal tam bokk ci kër gi ci liggéey bi nga xam ne yaatu na seen mbokkum taalibe Alaaji Hafiz Tiwaan mu sëriñ Saalih wasalaamualeykum wa rahmatullahi